mbokki internetu Dakar Actu fi ñu taxaw ni moom mooy Ndingler mm. Ndingler mu ngi bokk si Njagañaaw fi nga xamante ne nii moom mooy boo xoolee nii à ma droite am na dëkk bu ñuy wax Kuuj mu ngi bokk ci commune bu Sandiara ñu nekk au cœur de Dieguem fi nga xamante ni nii digganteem Mbour mën nañ ne ñaar fukki kilomètre la mu am lu rëy nag coow li la moom mooy lu 85 hectares ñu sa ëpp mu lënkale indi coow diggante ki nga xam ne moom mooy Babacar Ngom bu Sedima ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk bi di Ndengler donc fii ngeen di gis nii sama ginnaaw nii mooy suuf si nga xam ne moom moo indi coow li kon xam naa ne li ñuy def moom mooy waxtaan ak waa dëkk bi muy waa Ndengler ñu gën ñu wax situation bi nu mu demee ak Dakaractu suñu message dafa war a jàll fu nekk problème bu ñu tax a fi fii euh, ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ko parce que ñun ñëpp ñu ngi dund métit ak noot bu ñuy noot suñu askan bi parce que promoteur fa la ci suñu bëgg nangu sama dëkk lañu lañu menacé te sama waa dëkk xamuñu dara amuñu dara lu dul seen tool lépp loo leen mën jox te joxoo leen seen tool joxoo leen lu ñu bëgg kon nag ku jóge fale bëgg nangu suñu tool loolu duñ ko seetaan duñ ko seetaan dinañ dem ba fu suñu doole yem loolu moom moo ñu tax a réunir fii tey dossier bi nag yàgg na ñoo ngi ciy dox boobu léegi promoteur moo ñëw bëgg a jël suñu suuf ci loo xam ne population bi yegu ko xamu ko dañoo jekki jékki da ab promoteur ñew taxaw samp bëgg a dal seen souf population bi ne n'ak nag du fi am waaw donc ki promoteur bi ma bëgg wax ni moy Babacar Ngom bu jiite Sedima moom moo yore Sedima entreprise Sedima donc mom ci bopam mo ñew ci souf si lëkkaloo ak commune Sindia ci lu ñu mën a wax am benn kayit nee na benn instant ni ñoom ñoo ko jox TF maanaam titre foncier commune Sindia moo ko délivré loolu ah bu fekkente non dafa yem ci lu ku waa Sindia jox ñun suñu yoon nekku ci mais dafa dem ba dugg suñu tool yi benn instant nag bëgg ñoo moom bëgg jël suñu suuf loolu moom ci suñu bopp mooy suñu naqar mom la jema joytu a jooytu les ñu koy saku pour am li pour suñu voix bi jot fo xam te ben de ni bu fu joté ñu mëna am suñu suuf saku nañ ko ay parce que comme village bi village amul dara l'udul, bëgg village am ak de village am ci lépp ab la même bu ne suñu tamitam ci naka noonu nag ci la ñu lëkkaloo ak ñoo xam te nga ne peut-être bu ñu eggee ci ñoom dinañu yëgale suñu message ci autorité yoo xamante nga ne peut-être mën nañ cee dara donc may rappeler nii képp ku fi teew teewu fii ndax parti politique moo la tax a jóg teewoo fi pour intérêt personnel parce que ñun ñu fi nekk yëpp ay doomi réew lañ doomi réew mi lañ doomi village bi lañ donc ñun bu ñu nootee ñu jël suñu suuf di ko def ñuy def ay démarches boobu ba léegi te amuñu foo xamte te buñ ko jooytoo foofu suñu doléance bi dinañ yegg fu mu war a yegg ci noonu nag la ñuy defee ay démarches di ut ay nit di ut ay nit ñoo xam te nga ne peut-être mën nañu euh, yeggale suñu mébét ci autorité yi donc dossier bi nag am na ñu bëri ñu ngi ciy dox en balaa may dem feneen dina commencé ci membre yu ñu wax moy association pour le développement de Sandok parce que ñom ñu ngi ciy dox ci dossier bi boobu ba tamitam ku nekk fi nga tok dossier bi nga ko déggee ba légui yaangi dox ci li nga mën donc ñom tamitam gàcci lama def nañ ci lo xam tan ci ñu ci commencer def parce que ñu ñu ngi continuer diko def donc ñun tay jeetaay bi dara waralu ko pour suñu mais il fu ci ci ci ci autorité mais nous ñu ngi ci dossier ama ama am am solo donc ñi fi nek ku que je salue de passage porte-parole bu Pastef de Ousmane Sonko mu ngi fi ma bëgg ngeen dossier bi c'est pas un dossier politique bu ku fi pour politique pour politique que est parti bu nekk au pouvoir aujourd'hui gu mën a jox suñu terre ku ko mën a signé moom ci boppam peut-être buñ ko gisul mën nañu wax ay politique parce que Babacar Ngom kayit bu am kayit bu am ala kuli xaali mën nañu gis nañ ay preuve yu xam ne jarul werante que le président Macky Sall moo ko dossier boobu ci yan anam nag ñun kumpa nañu parce que dañoo yaakaar ne boo demee ci population bëgg ci seen suuf balaa nga koy mën a am ba am TF balaa ngay am titre foncier ñooñu dëkk bi war nañ leen mën a concerter ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom bu ñu nangoo ñu xam ne nangu nañ bu ñu nanguwul nga bàyyi leen mais loolu amut loolu amut dafa ñëw waxtaan ak waa village bi waa village bi nanguwuñu mu dem pendant des années ñëwaat lu tax nag ñu gën a jóg tey mooy que dafa am action bu garaaw a garaaw bu xaw ci am ci dëkk bi ren ci nawet bi parce que ñoom dañoo jékki-jékki ba ñu palante leen ay gendarme ci tool yi ñoom seen bopp bu ñu demee góob goobi sax ñu jàpp leen ñu ngi ñii ñoom toog kii ngeen di gis ñii may wax ak yéen jàpp na tëdd na ci karo yi pendant ñaari yoon wala ñetti yoon ci lan dem na ci tool yi di góob rumu récolte Eh, ñu yaakaar nag bu dee Babacar Ngom dafa bëgg développement Sénégal xam je pense que ne ñoo xamante nga ne ñoom amuñu dara lu dul mbéy koo leen mën a jàppale ci mbéy nga leen war a mën donc Babacar par le biais de Babacar sa Babacar la a wax moom ci bopam mo joxe ordre boobu moo ko parce que xanaa xalaatuñu nit dina mën a force publique ba mu utiliser ñëw palante leen ci suñuy tool yi suñu waajur yi ak suñu mag yi suñu rakk yi bu ñu demee góo bi ñu jàppaleen yóbbu leen ci kaso bi loolu def ñoo métti métti métti métti bu métti sax Ndingler a ngi nii presse bu fi teew tey xam nga Ndingler amul dara gisoo leen fi courant gisoo leen fi ndox gisoo leen fi dara donc je pense que ne dëkk bu mel noonu ku fi ñëw bëgg lu ñu yaakaar nga bëgg kaa foqati seen loxo loolu mooy ma weer la nga dem di dignité nit ki lay dindi sax parce que béykat boo xam te nga ne xamul dara lu dul toolam nga ñëw nangu ko kooku fan la jëm amul usine amul dara mbéy la yaakaar nga ñëw na nga da ngay foqarti loo kii boobu noonu toolam dem jël ko di ko exploité boobu léegi nag ñun ci suñu bopp sakku nañ jeetaay ak Babacar bu sonn sakku nañ ko sakku nañ ko sakku bu sonn mënuñu koo am léegi léegi nag ba démb démb bu ñu contacter Bassirou Diomaye fay pour ma def defal ñu conférence de presse bi donc moom ci boppam mu ngi dakaar ci ci ci ci foncier lay liggéey xam na bu baax a baax a a baax ci lu muy liggéey d'ailleurs sax def na ci chronique chronique baa ngi dox partout au monde ñi xam ne village bu dëkk Ndingler dañu ngi leen di noot di nangu seen suuf parce que wax na ci jég na ci ay jéego yu bëri bëri. Babacar nak bu mu déggee ne Diomaye Fay mom mom ci bopam moy dem Ndingler défi conférence pour porte-voix de population bi ci démb à 15 h le wo le wo Basirou wo Basirou nek ah Basirou de dama damaa da nga am conférence ak wa Ndingler ci foncier bi mu don sakku nak nga rencontré ma bala conférence bi dem xawma nak lan ngeen di waxtane fi mais bëggoon nga ñew ñu waxtaan parce que waxtaan lepp fa la xej léegi bag Basiiru bu mu defee noonu tamitam moom ci boppam mënoon naa dem rencontre ji Babacar Ngom mais moom def maa woo téléphone nee ma yaa ngi fan mu nekk ah man de maa ngi mbuur nii damaa am cours ni sax damay jàngale ji nii mu ne ma en fait Babacar def maa woo nee ma def maa soxla parce que comme man maay defi conférence bi euh, Ndingler Basiiru nag ci njubam ak xam lu muy def mu woo ma téléphone nee ma damaa bëggoon nga ñëw teewee rencontre boobu balaa ñuy wax Basirou rencontré na Babacar ngoom nekk benn instant ni ah euh, mën na am ñu ger ñu ci la ma wooye ñam nañ ànd xaar ma ma fa 18 heures ñu dem rencontre Babacar léegi bu ñu demee ci Babacar Babacar waxtaan ak ñun lan la mooy expliquer dossier bi jox ñu ay papiers yoo xam te nga ne moom la yor moom la ko Macky saal signal pour suuf si e ñu toog foofu waxtaan waxtaan ak ñun ci naka la jotee terrain eh, suuf si noonu la ñu jógee ci Babacar démb ñëw taxul suñu conférence de presse bu ñu bëggoon def incha allah mu ngi nii tey dinañ ko def te suñu mébét mooy suñu suuf en tout cas xamal nañ Babacar daal lépp loo mën waxtaan nee na waxtaan la bëgg waxtaan la bëgg nag nee nañ ko du ñun ñoo yore waxtaan bi te ñun waxtaan boo mënta bëgg te ñun nekkul nga bàyyi suñu teer suñu suuf waxtaan boobu dégluwuñ ko lii lañ fa jële ci Babacar tey démb pour mbir mi ñu am information bu doy pour autorité mën ci jot nekkul na ñëpp dañuy xel di négocier déedéet yaa de am dina am ñoo xam dañuy wàcc sur le terrain pour jàmmarloog waa ji ñii dem ci taabal yi di négocier noonu la guerre di am parce que boobu lay utiliser c'est des bandits waaw band yi organisé wul lañ ñu organisé wul lañ parce que ay band yu am xaalis lañ bu ñuy ñëw seen doole xejul ci kenn noonu la ñuy ñëwee te importance bi mooy ñu jot suñu suuf ndax ci la ñuy béy di dundal suñu njaboot dégg nga ca lañ yaakaar di dundal suñu njaboot pour bañ a gàddaay wala dem feneen wala feneen ndax béykat kat boo jëlee suufam fu mu jëm day gàddaay. suuf bi nag li ma leen bëgg a xamal mooy du gudd du gàtt na ngeen xam ne fee ñu tàmbali buy kooku di dof dof lu ba jël foog naa ne ñetti promoteur ñëw nañ fi Mayel Diop ñëw na fi moom mii ñëw na fi ak keneen ku ci nekk bataille psychologiquement lañ ne ku gagné guerre bi rek keneen avancé waat jëlaat lu nekkaat ci kanam. te na ngeen xam ne département Mbour fii dong moo des suuf bu ngeen man koowul dëgër man koo nekk benn. am na lu ñu yàlla may nañu utiliser suñuy force kee force am lay utiliser am nañu force spéciale bu ñu am ndeng am am ñu ko ragal am na lu ñu leen ragale lañu leen ragale loolu nag kunpa la kunpa boobu nag da ba koy utiliser pour mën a am lu ñu bëgg waa ji bu ñu uppee xaalis am na lu ñuy yàlla may loo xam ne fu mu ne mën nañ ko fa fekk jàpp jëflante ko moom kooku demaa bëgg ngeen jóg ndax lii lu tax mu bàyyi de ku dëgër bopp la te am xaalis la moom nag na xam ni ñun jóg nañ pour jamarloog moom fa mu bëgg fa bëgg mbir mi yem fa rek daañ yema ak ak moom foofu ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg suñu suuf naka ba nañu bàyyi suñu suuf ci la ñuy béy di dundalee nañu ko bàyyi loolu mooy wax ji am bi tollu juróom-ñaar fukk at la tegu tool yi bu jëkk bu Babacar Ngom jëkkee ñëw mu woo dëkk bi yëpp ñu toog fii ci penc mi mu ne dama bëgg ngeen defal ma ma ànd ak yéen liggéey ci seen tool dinaa leen defal kura dinaa leen xical euh, kii ci dinaa xical leen ndox yëpp dinaa ko def ngeen liggéey parce que man dama bëgg bi usine boo xam ne dañ koy def affaire aliment mu ne aliment boobu nag muy ay cuuc dafa bëgg a dundal boobu laa ko wax ne mu ànd ak xaadim la muy wax wax ci la lamb yi promoteur boobu mu ne ko nun ci suñu bopp dangay wax affaire dundal cuuj man dumbalu moom cuuj de ay nit laay dundal suñ tool yooyu moo yor dëkk bi tey moo yor dëkk boobu ëllëg duñ ko jox tey duñ ko jox ëllëg dégg nga mu ne ko yow bi nga ñëwee di ñaan ñu wax la lu ñu man ak lu ñu manul ñun ci duñu bopp duñu jox suñu tool yi tey duñu ko jox ci ëllëg tey la ñu gën a bañ nag tey tey jii la ñu gën a bañ waaw léegi ci boppam bu yoni ot euh, doomam ci oto bi doom bi ñëw indi ak deux millions ne ma am deux millions bi jox ko dëkk bi ñu jox ko njëg gu wax mu ne man deux millions fekkiwuma ko ñu di ko jox njëg gu wax mosuma koo gis suñu tool yi ñoo ëpp seen kaat kaat yi ak seen paso yi ñu soxlawuñu saxaar tey soxlawuñu ko éleg dégg nga te deux million boobu yóbbu ko Carrefour Colobane ñi fa nit mel te néew doole mu nga fa yóbbu ko foofu bëgguñu deux millions ci suñu tool yi te deux millions bu ñu soog koy joxe suñu tool yee tax ñu toog toog toog toog toog bu ñaari at ren gisatuñ ko mu jékki-jékki nag indi nag ñu jékki-jékki bi gis salaam ni fees àll bi ñu woo ma téléphone ñu ma ah waaw ah, ah, Salam Gueye bari nañ ci àll bi de man ah waaw ci àll bi mu yónni sama rak mu dem mu ne ko nun nii la ñuy jëm jëmuñu seen tool yi ku bëgg seen tool yi dina waxtaan kooku wax noonu e ñu toog yaakaar na nag foofu lay yem mu jóg foofu am xale yi jëkk ñëw kii nekk toolam kii ñaar yi xale yal di wut ñax yu ñu xade seen néeg ñu fa tagal ngay fekk leen foofu ramasse leen yóbbu ñu nekk ci loolu ngoon jot ñu ñibbisi defatuñ ko defatuñ ko ba ñu def manifeste dem ci àll bi bu ñu taxawee ci tool yi jale gerte yaa nga ni bari bu ñu góobu guur baa nga ni jal dugub baa nga ni même dara bi ci bopp seen bopp sax dañ doon yeey ci gerte yi sax dañ doon lekk ci gerte yi di petem di yee ci gerte yi dégg nga ñu def loolu mu ñëwee mu ñëwee ma léegi lu ngeen wut ci àll bi ma nekk noonu dañu bëgg a manifeste parce que li jëkkul jën nga gerte bi jën nga dugub ji jën nga lépp njën ñoo gi di ñu porté nun nag duñ joxe duñ teew rek duñu ale mu ne su ngeen amul kayit nag du ngeen mën a wax ñoo am ne dëkk bi foofu la jëkke jóg jóg boobu nag ñëw fii ci biir village bi fii waaw boobu nag bekkoor bi daa miti lool bekkoor ba miti woon loolu tax ñu ñëpp si nag ci biir fii suuf fii loolu moo taxul nag ñu ñëw nag dëkkaat fii nag mais taxul teewul it ñu ñu jóge fii di béy boobu ndax saret la ñuy yóbbu saret la ak fas yi moom lay yóbbu di béyee foofu ñoo ñëpp foofu la dëkkoon nag kon nag su ñu demee tey nag ba nit ñëw rek ak doole bu li loolu passé mu def kambug boo xam ne suñuy diggante tool yi am machine boo xam ne daal boo fekk ne nag saneen mi sax ñibbee bu ñu mais su fekkoon saneen mi ñibbiwuñu kon duñ ko man mais dañu xam ne kambe ji dañu bëgg def occasion ci gendarme yi di gas di gas di gas di gas di gas di gas di gas ba ba mu xool dañu dama mujj wax wax mbaan dëkk bi ak leen ñu dem ñu suuli ko nag yi mën a jàll taat yi mën a jàll ñu jël ñu doole baa doole moo métti ndax Babacar lu mu am ci alal dëkk coog nun ñoo xam ne même juróomi dërëm sax yoruñu ko loolu sax dëgg dëgg dëgg dëgg ñaaw la te raxatu nun de amuñu doole yàlla rek lañu yaakaar xamuñu lu dul sam ak mbéy ak yaay mbéy moomu nag bu ñu yaakaaroon tey moom la benn waaye bu tudd Babacar Ngom di doomu Diourbel jóge Diourbel ñëw ba bi région Thiès département bu muy nangu suuf waasandoo di suuf soo xamante ne moom rek la yaakaar ñu jàpp na nag suuf soosu ñëw na tey ba taxaw talal leen kayit ne dafa am titre français, te nit mënula am titre français te amul délibération délibération nak xam nañ communauté rurale moo ko doon joxe wala mairie loolu amul problème mu jóge ci délibération nee amna baye amna baye am loolu mën nañu wax ne Macky Sall yoo ko woon mais comme amna titre français. te titre kenn mënu koo joxe ko dul njiitu réew mi xam nañ ñu waa Sandakou de Macky Sall yàgg jot suñu mébét te su ñëwu ko ñun waa Sandakou yàgg nañ di bind di jox Macky Sall te su ñëwu kon nag bu dee dafa jot kayit Babacar Ngom benn nit rek teg ci biir Sandakou jël lu toll ñaari téeméeri mètre hectares autant pour moi deux cent vingt quatre hectares virgule jox kenn nit pour xañ li mat téeméeri ay tool je vois que Macky lu mu waroon dem am na lu ci manqué bu dee def na léegi am na lu ci manqué mais dama jàpp naa 2014 képp kuy kaar doog a Sandock amoon nga yaakaar ne Sandock lu ñuy déposé woon ci table Abdoulaye Macky Sall fekk ko fi bu bu mu koy déposé table Abdoulaye Macky Sall mu woon ci wetam muy la communalisation de Sanokh Macky Sall ak directeur cabinet de Maître El Hadji na en juin 2014 Sanokh dina am commune kayit boobu signé wu ko te loolu gën yomb signé waxoon na Sanokh aussi dina am route bu jógee Sandiara jaar Njaaraw dem Suusum dem Mbuunjaan gisaguñu xeer gisaguñu sax ku ñëw di natt kon bu dee lu ñor sa ndox Macky Sall mënuñu te taxaw te lu ñor li sa ndox bu ñëwee yàkkamti ko vraiment di signé dafa gàggal dooma ji suñu intérêt aussi je crois que war nañu toggat xoolal suñu bopp ñun waa sa ndox parce que ñun akkaar ñu dala dul mbéy ak sàmm amatuñu tool fu ñu béyee amatuñu àll bu ñu sàmmee kon kay nañ ñëw rek rey benn yoon suuf si ñuy wax nag suufu ndegeleer na Babacar Ngom xam ne bu doole bu dee doole rek moo tax muy nangu suufu jàmbur bés a nga ñëw doolam boobu dina ko ñàkk yàlla yàlla bu ko jox dina ko nangu def ko keneen. Macky Sall am nga yeneen problème yu nga war a signé bu dul di signé décret bu mun a tax waa Ndingler waa Sanokh ñàkk seeni tool te loolu nag defe naa buñ la ko duñ la ko baal duñ la ko bàyyi ñu ñaan Babacar Ngom. bu dee nit day am bu doylu ci lu mu am ci àdduna bii doylu ko nañ koy ñaan ngir la jëma yonent bi nañu bàyyi suñu suuf mooy suufu Ndingler boobu deux cent vingt quatre hectares buñ la ko joxee ñu lay ñaan ñu luñ ci am matul quinze hectares te mënoo koo bàyyi boo ñu waxee gëm naa yàlla suñu borom war nañu xoolal suñu bopp